ndax jalis la baas yow ba ngay dugg kaso kenn duggul kaso yow ba lay tëj kaso pentaase yi yaa keneen ak keneen jàpp la di la katt ci biir gir yi lu neex yaa toog di ko wax man duma duulal kenn duma sosal kenn duma tudd turu kenn goro nawloowu sa goro nawloowu la sa jëkkër nawloowu la xewle nga programme sëy bu naqaree sax xanaa njëkkee wala goro mën a génn njëkkee wala goro mën a génn fu ne nga daw fa lekkatoo naanoo katta ak sa jëkkër joojoo la manqué maasàllaa kattam yu neex yooyu léegi kattatu la beneen xale lay kat xale bi jël ko ci ordre buur di ko toppatoo guddi gu jot di ko taajal ndogu mu di ko katt lu neex kattu jëkkër ya la manqué moo tax nga am fit de mémoire loo ma rakkal ma rakkal la lu ko raw it's cobra ayam xiyal man du ma giwin duma ma lesbienne samay ween a ngi nii du ma caga du ma ala fint du ma paax ndox baas yii may def yaa ma ko def loo man xaw ma wax du ñaaw xaw ma lu bon xaw ma lu ñaaw waaye boo ma rëkkalee dama lay rëkkalaatal man sama maam sàcc la yow sa maam caga la sama maam màkka la dem di sàcc yow sa maam gànnaar la daan dem di cagatu naar yi di ko katt bu bare jël eh, ndoxu géej gi di ko assi data bi pour data bi infection yi ndax pour artiste sax problème na ndax infection yu bari ndax da daan jël jalaat jël jalaat kon sa maam moo yor téerew bii bi maasàllaa katt gi da nga ko dondee ci sa maam gi dama ko dondee sama maam yow katt gi da nga ko dondee ci kon katt gi donnante la maasàllaa buntu palaasu jeeg ba nga daan toog lal fa sa bagage boo lalee ba pare muri daal di dem bu guddi jotee nga dem anawaan soirée bu dul soirée giwin yaa nga fa te nga ne doo giwin lesbienne bu du lesbienne dëmm yaa ànd ak moom yow kattal sa nay ba lesbienne yi yow les lesbienne yéen a gën ndax ñoom ñi nga tàppalante seen biir te weddi wuñ waaye yow soo demee ñu tàppal la ba mu neex nga weddi pour lan weela maal lu ma caga xuloo bi na neex te bu ñu duulalante bu ñu inventalante yow xam nga fi ngay tëbbee xam nga fi ngay rootee bii avion yi man masalla employé yaa ngi ni ñëpp jigéen la man sama benn employé ànduma ak moom voyage mu jàpp ma di ma katt ba fajar ba mujj gi ma gërëm amee perturbation de de mémoire war a vocal sama rek vocal jàmbur yàlla non ilaha illallah koy xas yaay xasit bi yaay arriviste bi yaay paax nuux bi arriviste bu toj sa la nday nga arriviste bu mag yow xam nga ne sa jëkkër ji bu delloo yow du jom du amul jom wala amul nday waaye ndayam jeeg la xale du yàpp nopp lu ci sëriñ si nga xam ne kii ba ndayam di jug jugoo katt gu neex boo ko bëgg a tee demal fañ lay kattee bu programme jotee 31 décembre wala dara doo ànd ak sa jëkkër xale ngay àndal xam naa ne xale bi kooy bi mu yor baax na nag kooy bi mu yor baax na man jàllo jëri un mois vingt ñu takk ma ma xool gisuma la ma xam ma tallal ba càkka njaay sama jëkkër toog di ma sagal ma ne ko bul ma sagal tas naa ma génn def vidéo kon maa am fit maay kënzal maay jaabira tubaar fakkal la maa sàllaa man mi mën a assumer ñu fase sa ndey fu ne bu kii wootee ba pare mën a duul sama yaay sa xamul li sama sëy sama lii sama ñépp a ko xam kat yi ci réew mi la mun ta supporter wax yi ñaaw ci réew mi bu demee toog ca ay moroomam ñu koy mokke di ko ñaawal yow maag yow yam yàqu na ñaaw na na yàqu na ñaaw duma laalagum ndey duma laalagum baay fi nga daanalee rek laay dikkaatee muy maam sama maam bu góor sàcc yow sama maam bu góor caga la katt na jéeri katt na waala ñàkk tax nga toog ci digg interview yow sama maam waccalu la dara ñun sët sax dañoo doon yow sama maam waccalu la dara dangaa taxaw ci digg internet jooy ko sa maam génn ba ñuy toll tànku taabal sa maam ñaaw nga ñàkk kër ga tilim salte xeñ xunnu keroog ba ma la wuy see amoo fu mu dugal man ba ma wuy see dama laa dugal ràccal la masalla tubaar fakal la sa maam bëñam gudd na ñaaw na mel na tànk taabal ba pare duul wàcce lobi nag te kenn lekkul kenn naanul duuli ci réew mi nañ ko arrêté yaa xam caga yaa xam giwin yaa xam lesbienne yaa xam sàcc man duma sàcc ka koy sos bu subaa tey lay dégg njaaja njaay ka koy sos dootul nelaw man kenn duma sosal sàcc yaay sàcc yaay giwin yaay caga yaay kataateur sa kooy miin na kooy Sénégal yow bu ñu la sappee samp sa data wala dañ naan kooy bu mu sa kat rek kaay nga wax sama waa ji sa data miin na koy bu ne yaa raw bi juróom raay fukk dugal yëngal san masalla tubar fa kàll maa ngi dem sama kër ndogu julli bu ma taalaatee mu gën a ñaaw maam rek la laa lakk ma yam ci maam bis bu ñëwee ci nday dina mel na sagar taalaale na ñaaw dañ maa ñaanoon démb ma ne bu ma xëyee tey lu rafet laay wax man du ma jeeg buy tëkku damay dëgg sanda ba xool benn place pépp nga foqatiku da nga jooy man munoo maa wax lu ma jooyloo munoo maa xas lu ma metti man dama lay wax ay bal ku ko dégg xam ne lii ma lay wax dëgg la duulu ko duulu ma ko man du ma sosal nit wala toog naan ay diw turu jàmbur yi ngay tudd ci histoire bi pour la maag yow ñoo jotee baaturu jàmbur yi ngay tudd man munoo maa duulal ci nit lu ma saf bàyyi Modou ma ngay wax boo demee bu waxee dama naan ko maa tay keneen boo waxee dama ko maa tay kon arrêtel sos yi kooku mën la bëgg xam na ni man duma yàq yaay Baaba Njaay duukat nga nitu milieu nga nitu banlieue zaar nga yaay caga yaay lesbienne yaay katateur bi yaa raw ubbi juróom ndax ponkal bi dimbali na la ponkal bi dooleel na la ndax yaay toog sax naan man duma prante jeeg xam naa dañ may mere ci sama wax jooju ndax am na ay ñoo xam ne macha allah ñu bari ñu may mere ci wax jooju ku ma wax jooju moo ko taalaate indaat ci ay leeral ba mu neex ko koo lay may ñu katt la yëkkate ay million di la ko may te doomu biiral bi ngay wax yow dangaa dof wala lan wala dangaa bëgg a xam wala lan yow dangaa neex duggal Cees laajte nga ne Cees carrément dañ maa bañ buñ ma bañoon sama place du fees sept places ak yoo xam ne macha allah sama kër nee nga am oto man li ma am war a oto R plus 3 R ci digg Thiès kaay fa seen ne katt bu mel ne man daanaka suufu Thiès yi yëpp boo ci wëri am maa man.